ñu ngi leen di delloo nuyoo di leen delloo ziara. Euh, yan kàddu nga mën a yëkkati ci jëmm ji nga xam ne moo fi bàyyi ko muy sëñ Mandiaye Diong. Euh, sëñ Mandiaye Diong moom kàddu yi ma mën a yëkkati jëme ci moom bari na lool. Euh, bari na te it nag kàddu la yoo xam ni it lu ci ne rek mënees na ko amal seede man sëñ Muntaxa moo ma boole ak moom. Euh, ca daara jële nga xam ni da ko tabaxoon jébbal ko sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa jël daara ji jébbal ma ko daara jaa ngi nekk aliya daara ju mag la manees na ne liggéeyam ci lislaam ci daara jooja la mujje la mujje def hmm? waaw ci wàllu tabax ci wàllu tabax daara foofa la mujj hmm. euh, mu jàpp ma jàpp gu goo xam ni yéeme na ba tax lu bari dañ ko doon waxtaan hmm. la ma xam ci moom euh, daf ci bokk nii dañu daan jàng ci taarix ñuy wax nit ñoo xam ne dañu summeeku ci lépp lu ñu moom jeex ko yàlla defee loxoy neen da ko daan jàng ci taarix diw mas na ko def diw mas na ko def waaye man ci sama dund li ma juddoog léegi doonte yàggagul moom laa mës a gis ku def loolu la mu am yëpp mu jox ko yàlla desee loxoy neen moom laa mës a gis ko def jàng nañ ci lu bari nag diw defoon na ko jale ko ci Ousmane ibn Affan dale ko ci Aboubacar dem ci Aboubacar Siddiq eh, waaye baay ma Mandiaye moom laa mës a gis mu joxe li mu moom lépp toog ak ak loxoy neen koo xam ni ba ngay toogal sa bopp ci sa coobare màggatagoo hmm? ba muy toog ci coobareem di jël retraite booba màggatagul yore lu bare bare bari ci ay milliards lépp mu jël ko tabaxe ko jàkk ay jàkk tabaxe ko ay daara tabaxe ko ay école di ci dimbali ay nit ñii mu yor leen ndékki di ci fay ay imam di ci yóbbu ay nit umra di ci yóbbu ay nit xaj alalam yëpp ci la ko defe lépp lu mu moomoon te mu doon bien bu taxaw muy ay kër muy ay ay ay ay ay ay ay action jaay lépp def ko ci yoonu yàlla moom laa gis mu def ko ba deseetul dara day toog dërëm du ko yore ci poosam loola mën naa ko seede ci moom ci moom laa mës a gis ku joxe lépp toog ak loxoy neen moom rek laa ko mës a gis ñaareel bi bis bii di bisu noppaloom gisuma ko wadjal bisug noppolam niki mu mu mom moom noppolam hmm musuma tok ak mom te tuddul dee te waxtanu lak manit ci walu dee waxtanu lak man ci walu bammel waxtanu lak man ci walu alakhirah mustam ci jotaay lu mu gatt gatt sama ak mom dana dana wax ak man ci lu mel hmm lepp rek mu jox ko yalla ndax mas nama wax ne ma man day dama dama sama baye da bëggon ma jàngal Quran. waaye yàlla dogalul ma jàng alquran eh, yàlla nattuma ma dugg ci njàngum métier mm-hmm. ci samay mag ak samay nijaay mm-hmm. eh, yàlla dogalit ma dem ci wàll woowa di liggéey di liggéey ba yàlla wërsëgal ma mm-hmm. mu ne waaye li ma rëccu ci sama àdduna mooy ñàkk jàng alquran lii nga xam ni nag maa ko liggéey mm. ñàkk ko mu lew ma mm. lépp danaa ko jox yàlla lépp jox naa ko yàlla ndax euh, ma mën a euh, dabu la nga xam ni moom ma faat ci li ma ñàkk jàng alxuraan lii Baye Mandiaye mas na ma ko wax sell goo xam ni ci lu muy def mm. bañ na ko ba bu yorut lu muy joxe sax yenn saay day daw jàkk ji mbaamu leb joxe chauffeur am nee na eggoon na foofu bu amul lu muy joxe mu daw day daw ndax heure julli bu jot day am nit ñuy taxaw di ko xaar la mu mënul mën na lépp ba mu des jàppandiwul mën na lépp ba mu des yoruma waaw chauffeur am bi muy àndal lu toll ji fanweeri at nee na ma góor gi dana ko fay ba pare yore ay millions yu bari fay ko ci toog lu matul semaine lépp jeex mu ñëw di ko lebaat la lebaat ci la mu ko fayoon pour mu maye ko daaw ci tabaski bi ay doomam jóge nañu bitim réew ñëw mu yebal leen ñu ñëw seet si ma fële ca daara ja ñëw seet si daara ji ba ma delsee mi ngi may wax ne ma ñiikat la ma bëggoon daal mooy ñu liggéey di ma jox ndax ma saraxeel leen ko ma lu ñu liggéey ñu jox ma ko ma saraxe ko kon moom soxlawul woon ci doomam mu koy jox pour mu dund soxlawul woon ci ay doomam ñu ñu koy jox pour mu sol hmm. waaye la mu soxla woon mooy lu ñu liggéey jox ko ko mu mayee ko <laughs> maa ngi bëgg a yàgg ci àdduna donte nag maguma fi hmm.